الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا سيدنا أمولنا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين أما بعد فهذا اليوم يوم العيد لكل مؤمن مسلم محسن سعيد فاذكروا الله تبارك وتعالى فيه على كونه سرورا للنبي ولمن يقتفيه صلى وسلم وبارك عليه الله في آله وصحبه وكل من تلاه وأوصيكم فيه وبعده بملاسمة ما اختير لكم من الأخلاق والعقائد والأقوال والأفعال لوجه الله تبارك وتعالى القائد وأحذركم فيه وبعده عن فعل كل ما لم يختر لكم من العبادات والعادات فإنما اختاره الله تبارك وتعالى هو الجامع للسعادات فطوبى لمن لا يلتفت إلى غير ربه ملازما ما اختير له من منر لبه وويل لمن قاد قاده إبلس إلى ما شاء فإنه يلازم ما أخسى وعسى قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وقال الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فطوبى لمن أخذ ما أتى به الرسول عليه بآله وصحبه سلاما معطي السول وللذي همته ترتقي إلى الغير لا إلى الكدر والضير وويل لمن لم يأخذ ما أتى به المنتقى عليه بآله وصحبه سلام من جاد لي بانتقاء وأوصيكم أيها الإخوان لوجه من كفاني ذوي الحسد والعدوان بأن لا تفارقوا ما اختير لكم أبدا فإن مفارقته تجر إليكم ألما وكبدا وأنهاكم عن فعل كل ما لم يتبين لكم كونه الصواب فإنه مما يوجه إلى غير ربكم الأجر والرضا والثواب ولا تطلبوا الكرم بغير التقوى فإن الكرم هو التقوى ولا تطلبوا العزة من خير العزيز المعز بجاه عبده ونبيه ورسوله الأعز فإن من أدبر عن الله تبارك وتعالى إلى سواه تركه مع نفسه وهواه ومن أقبل إلى الله تبارك وتعالى مع الوسيلة قاد إليه كل ما كان يرتقي إليه من الجميلة يا أيها الناس اعبدوا ربكم اتق الله حيث كنت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمد قد أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وبارك أن من تاب من أمتي قبل موته فإنه يشفع فيه عند مميت ميتته وأن من لم يتب منهم توبة نصوها فقد أمره من وعظه نصيحة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الذي جعل يوم العيد يوم التوسعة والتفريح والإطلاق والصلاة والسلام على من أخرجنا من ظلمة الجهل والشرك والنفاق والإملاق سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ذوي الوفاق وعلى من تبعهم بإحسان في جملة الآفاق أما بعد فهذا اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء لم نشارك فأحمد الله تبارك وتعالى على ما جاد به فيه للمنتقى عليه سلامه بجميع مقتفيه فإن هذا اليوم يوم أكل وشرب وعتق بفضل من جاد بفتح الرزق فمن شكر الله تبارك وتعالى فيه فإنه يظفر بكل ما من الخير يصطفيه فاطلبوا فيه من الله تبارك وتعالى خيره فإنه تبارك وتعالى يصرف إلى غيركم ضيره وتوبوا فيه إلى الله تبارك وتعالى من جملة عصيان فإنه يغفر لكم ويكف إلى غيركم ذوي التقيان وتوجهوا إلى ربكم بالكتاب والسنة والإجماع فإن الله تبارك وتعالى يكفيكم من أبوا فيه الاجتماع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 bokki jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu mboolem mbokk yi fi nekk yépp di leen ndokkeel ci bis bu tedd bii di ñaan borom bi subhaanahu wa taala jaamu yàlla gi ñu jóge te yàlla digge ci ñett te mooy yërmande ak njëggal ak gore ci safara yàlla na ko yàlla defal ñun ñépp ñu ngi ndokkeel jullit yépp ak fu ñu mën a nekk moo xam ci réew mi la moo xam bitim réew fu ab jullit mën a nekk ñu ngi lay ndokkeel tey ñaan di ñaan googu yàlla na yàlla na ko yàlla jotale euh, di nuyu itam bokk yi nga xam ne ñooy taxawu barab bi di di taxawu liggéey bi ba tey barab bi mel nii mu mel ñi fi daan ñëw démb ak bërki démb gis nañ ko na mu meloon ak tey jii ni mu mel loolu lépp ñu ciy sant borom bi subhaanahu wa moom mi nga xam ne lépp lu waay def tam rekk moom moom rek mu tax soo fi jógee itam lépp mën naa ràpp ba mu des li nga ko jox moom borom bi subhaanahu wa taala kër goo tabax mën naa ràpp waaye lépp la jox yàlla moom day gën di dund day gën di day gën di sax loolu sant yàlla la ñu kon ñuy ñaanal Cheikh Mouhamadou Mourtada yàlla na ko yàlla dolli njëggal ak leer te yàlla taxaw njaboot gi waaye kilifa yi diine yi nga xam ne yépp ñoo ko jiitu ak ñi nga xam ne ñoo ko fi wut yépp itam ak fu ñu mën a nekk yàlla na yàlla taxaw te defal leen ndimbal ba li nga xam ne mooy ndono li ngeen fi bàyyeel ñu mën koo wattu ba mu mel na war a mel di nuyu njab sëñ mu sëñ Mamor ak njaboot gi yépp itam di leen ñaanal fii sëriñ laa tegoon tànkam yàlla na yàlla gën a kàttanal ba ñu yóbbu ko fu gën a sore sori sori bokk yi nag tey waxtaan wi dafa jëm ci loo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk seetlu moo di ne Euh, réew mi violence bi dafa ëpp defe naa ne léegi kenn mënta xëy te déggoo xew-xew bu xew moo xam ay wax la yu ñagas walla boog ay jëf yoo xam ne yu ñaaw la yoo xam ne soo moytuwul deret tuuru na ci loolu nag bariwaay gi jéggi na dayoo day ndax mbir moo xam ne boo demee ba bis bu ne danga daan toog weer door dégg benn nga dem ba léegi bis boo xëyee dégg benn kon mbir ma ma ngay yokk loolu nag defe naa ne ñëpp war nañ cee taxaw def ci taxaw xalaat ci waaye seet def ci taxaw seetlu itam kenn ku nekk xool sa bopp xool sa njaboot lu ciy sa responsabilité loolu nag bokk yi soo ko doon wax mënta weesu rek fi yàlla ne nañ fa jaar ñu ñu bañ faa jaar ab jaamu yàlla fépp foo xam ne fi la ko yàlla joxañ ne ko jaaral fii mu jaar feneen waxtu wu ne aw tiis rek lay dajeel ndax du dajeeg ndimbalu yàlla ndax yàlla nee na ku ma ragal rek mooy koo xam ne fu mu fu mu fu mu fu mu geesoo gis ma waaye képp koo xam ne war nga sama njug gi ginnaaw bis bu ne ci aw naqar aku tiis rek moom ngay dajeel kon li jiitu ci loolu mooy nit ñi delluwaat ci fi yàlla wax ne nañ fa teg suñu tànk ñu teg ko fa jàmm munta am te loolu amut waaye li ci des itam nga xam ne bokk na ci li ko sabab bokk na ci li ko sabab mooy kenn ku nekk léegi li nga xam ne mel na ni su fekkee amoon na fi it mi ngi fi doon jeex te mooy nit ki ne sama giir sàngam man pël laa walla wolof laa wala nangam gis ngeen léeg-léeg am ku wax wax yu ñagas jëme ko ci aw xeet muy pël walla wolof am keneen bu ci ëllëg saa keneen def lu mel noonu loolu nag mépp mbooloo moo xam ne ñu ngi ànd dund te bëgg a dund ci jàmm loolu dañ ko war a moytu xool li leen boole rek ñu ànd ci jàpp te kenn bañ a xool sa moroom di xool looy wax ci moom waaye gis nañ ne léegi loolu bis bu ne nga dégg kenn def ko léeg-léeg nga dégg kii def ko ba ci bu mujj bi yéeg yeneen koy dégg muy diggante ay xeet te waaso dafay lu doy waar loo xam ne ba réew yu tàkk yoo xam ne loolu moo ko taal loolu rek taal na ay réew te ñun itam bu ñu jaaree ca fa yoon wa ñooña jaaroon ba loola xew ci ñoom bu ñu xalaat ñu ne lu dul ne loolu rek mooy xew ci ñun ndax sunnatulaay mooy loolu yàlla moom li mu tëral ne ku fa jaar gis lii ku fa man di jaar lool rek ngay gis leneen li ci des itam mbir mi du mbirum waaso rek may am na leneen lu gën a doy waar loo xam ne bokk na ci sabab yi te loola mooy nit koo xam ne day farfarloo moo xam ci wàllu tarixa wala wàllu mouvement ba mu bokk man jamaatu ibad rahman laa bokk man wahabiya laa man murid laa man tijaan laa loolu itam mi ngi bëgg a tas réew mi kenn ku nekk da nga cay doxe doxin woo xam ne la lépp weesuwul farfarloo rek ba ci li weesu muy démb ak barki démb am na ñoo xam ne wax nañ ci lu nekk te li xew te mooy ñii woor ñi wori démb réew yu bare bari la xew ci réewi araab yi réewi jullit yi bari na ñoo xam ne ñoog ñoom ñoog ñun ñoo wareendoo tey jii am na ca ñoo xam ne itam démb ci seen réew ñii dañoo wori ñii dañoo woor léeg-léeg nag soo xamul li xew dañ la koy melal ba mu mel ni Sénégal rek moo mel noonu day mel ni Sénégal rek mu duñ yem ci loolu sax dañuy mel ni dañuy joxañ ne sëriñ si rek ñoo ñoo waral loolu loolu nag weesuwul ne boo xoolee ba ca biir am na ku ma dégg bërki dem muy wax ci télé bi ba ba dëndam tàng jàpp ne ñëpp dañoo war a war yi démb bay joxañ di wane ne diine ji kenn moomu ko waaye soo seetloo ñàkk xalaat rek la ndax ba muy wax loola weesuwul bëgg nit ñi bàyyi seen kilifa te déglu ko moom mu doon seen kilifa rek weesuwul soppi kilifa rek ndax ki lay wax moom ba jàpp ne moom li mu nekk mooy dëgg li mu la wax danga ko war a gëm daal di daal di bàyyi la nga ne woon moom bu boo noppee rek mu doon di doon sa kilifa moom kon soppi mbir mi soppi kilifa la waaye du leneen te loolu lu mat a bàyyi xel la ñu bari dañ lay wax waaye suñu noppee dañoo bëgg a doon sa kilifa yow loolu nag bàyyil sa kilifa te ñëw ma doon sa kilifa nag ab borom xel waru ko nangu kon li xew du ñomme xewu Sénégal rek ci réew julit yu bari la xewe Sëriñ Tuubaa nag wax nañ ne waxoon na ko nee na woon maa ngi dem te bàyyi leen ak seen coowul weer loolu nag jàpp naa ne moom rek moo waral coow loolu moom yemul ci Sénégal fépp la julit fi réew julit yëpp te li may wax lu ma xam la boo ma laajoon ma wax la réew yi nga xam ne démb am nañu wari am na ci ñoo xam ne wariwuñ ñoo góor ñoo ñun ñoo warandoo tey am ca ñoo ne ñii dañoo wari ñii wariwuñ kon mbir moomu niñ ko bëgg a garaawale bëgg koo yan sëriñ si ak tariixa yi dama ne loolu farfarloo rek ko waral moo tax farfarloo dafa doy waar te mata moytu lool te it dama koy faral di wax nit koo xam ne yow jàpp nga ne moom jaamu ko te xërëm la jaamu ko te bidaa la ba jàpp nga ne këram ëllëg mooy safara waaw nga jàpp ne te bu bisu korité jotee nag nga bëgg ngeen ànd julli ndax mooy àndu àndu julli ñi fa ngeen waroon a tàmbalee du foofu mooy ku nekk na xool na sa morom ne jullit la waaye yow ginnaaw da nga may xool jàpp ne man yéefar laa sama kër mooy safara waaw bu ñu àndee julli itam lan lay jariñ ginnaaw man ja bu ma jullee moo ma wooree lépp sawara mooy sama kër loolu foofu nga ma dëkkale ndax yow xëy na yow la yàlla jox sawara ak àjjana ba neex nga dugal ko fa yooyu dama ne yu mat a bàyyi xel la te mooy bëgg a tas réew mi te ku amul xel xamoo fooy teg sa tànk amoo kilifa gu wóor dellu danañ la danañ la karkaral ba dugal la foo xam ne boo moytuwul dootu neex a génn te boobaa ñu doon sa kilifa rek ni ma ko waxee beneen bi ci des itam mooy am na ay noon yoo xam ne ñoom it ñu ngi liggéey pour tariixa yi ak mbooloo yi tasaaroo ak jullit ñi tasaaroo internet bi léeg nga dégg ci wax wax wax joo xam ne boo demee ki koy wax sax du jullit. waaye day làqatu wax ne man murid laa wala mu ne ab tijaan laa wax safaan bu rëy boo xam ne war naa tax ñeneen ña ca des jóg loolu nag nañ bàyyi xel ne du caa toujours ab ab murit a koy wax wala ab tijaan a koy wax mën naa doon noonu lislaam seen noonu ñoom ñaar ñëpp bëgg ñu dalante ci seen kaw ba néew doole ba moom bu ñëwee jekkali leen loolu itam lu mata xel la ci mbir yi mbokk yi sunu borom moo ñu rëddaloon aw yoon woo xam ne daf ne ku ci jaar da nga mucc waxna na penc mi suñu bëggee am jàmm ni ñuy def la ci jëkk bu ko dem sooratul xujuraat sooratul xujuraat saar la wu am solo woo xam ne ku bëgg a defar sa penc fokk nga dellu ci ndax yàlla mi bind nit ñi wutale leen moo moo doon wax bi ma leen wutalee nu ngeen di def ba mën a ànd nee na la ci jiitu mooy laa yasxar xawmun min xawm sunu borom nee na su ngeen bëggee ànd te jàmm di am bu wenn xeet wala benn mbooloo xeeb beneen mbooloo ma ca des wala benn xeet xoob xeeb mbo xeet wa ca des xeebante moo ëpp moo ëpp def yàlla moo ko tere yàlla mi nu bind xam ne ñun ñëpp ñoo yem kenn ku nekk noomel moo la ko def yàlla moomu nee na bu kenn xeeb sa moroom penc mi nag bu xeebante amee ah loolu jàmm du fa mën a am ndax koo xeeb mu gis boppam kon nag nanuy fonkante ku nekk war ma ni nga def sa bopp nga def ko sa morom moo xam lu ngeen mën a wute ci waaso wala ci leneen lu mën a doon leneen la ca des euh, xeebante boobu mën nga koo gis ci ña ña nekk ca daara ja ak ña nekk ca ña doon jànge ca école francaise bi léeg nga gisee ko foofu ay phénomène mën naa feeñ fu bare bare bari mën naa xeeñ feeñ ni ma ko waxoon tànk ci wàllu wàllu waaso mën naa xee feeñ ci walu région bi nga xamne fi la nit ki dëkk région sàngam dañu tardé dañu njaay àlle ñun ñoy ñoy ñi nga xamne ño civiliser yoy yooyu yépp ci mëna andi ay ay ay ay ayib la sunu borom tek na ci ne wala tanabazu bil alqabi bu len xébanté waye bu len waxante wax ju ñaaw amna ko xamne su bëggé wax dara ci suñ mbokk tidiane bu dé am mourita amna wut tur bu mu ko wutal am ay ku nek amna na tur boo wutal sa morom nga xamne bo wété wéetee bëgg jëw sa morom loolu nga tur woowu nga koy wooyee bu dee ibaadu ba bu dee keneen am na koo xam ne ñooñu may wax ñëpp ku ne wutal nga sa morom tur tur yooyu nag sunu borom daf koy bañ ndax dafa bokk ci li nga xam ne mën naa andi ab safaan mën naa xew ci biir waaso yi mën naa xew ci biir tarixa yi loolu nag sunu borom daf koy bañ dafa bañ kenn di wutal sa morom aw tur woo xam ne tur saboote la tur woyefal ko la tur xeeb ko la wala tanaabazu bil alqaabi su suñ bëggee penc mi jag nag loolu dañ koy maytu mën naa xew ci ni ma ko waxee diggante tarixa yeeg mbooloo yeek ak yépp te itam sunu boroom waxoon na fenn nen ne nit ku nekk na wormaal boppam su bañee te wormaal ay kilifaam war may kilifay jàmbur bokk yi nit mënta fonk kilifaam ba teg ko fa mu gën a kawee kilifa keneen mu bëgg ko wàccee ci suuf ba mu gën a dem ci suuf loolu am xel du ko def ak nite nit fekkewu ko ndax fi nga teg sa kilifa rek fa la keneen teg teg kilifaam wala tasubu alladina yad'una min dunillah fa yasubu allaha aduwan bi xayri ilm sunu borom nee na woon di wax ak jullit ñi de ne leen borom yàlla yi nga xam ne dañ leen a yett ñee ngay jaamu nag ñee ngay jaamu xërëm ñee ngay jaamu aw fas ñee ngay jaamu sawara mu ne lu yàlla lu yàgg-yàgg bu leen leen saagaal seen yàlla yooyu ndax bu ngeen saagaal seen yàlla yooyu ñu saaga ma man yàlla kon nag loolu li muy tekki mooy bo saga serigne jàmbur wala kilifa ak jàmbur mu saga sa kilifa bokki ku bokku na ci wormal sa kilifa moy fexe ba do wax kilifa ak ab safaan waaw ndax ginaaw san la bo xamné bu démé man na delsi wala sax bu ko gëna reey delsi su boba yow luñ wax sa kilifa yow la yow yaay responsable yaay responsable lolu lu mat moytu la benen bi ci dess moy nanu rafet rafet ndort leg leg nga romb mbolo mo xamné lune fune nga len dëkkale lune nga len di tuddé lune nga len khalatal bokk yi rafen jortu dafa am solo sunu borom mënu ko digal de sunu borom moo ko digal ño romb rek jàppal ni aw yiw mo len taxa a jóg ca aw yiw lañu nek nga xol no fexe ba doli seen yiw bo ci mané jariñu nga jariñu ci waye di len khalatal lu ñaaw ak di len dëkkale fu dëkkut sunu borom daf ko bañ ijtanibu kaseeran min min a sunu borom wax waye bokk yi am na leneen lu yàlla wax loo xam ne lu moo gën a amati solo ndax réew mi wala àdduna bi léegi àddina ah, bi information la bis boo xëyee ñu génne information joxe ko ne nangam xew na boo téyit mën nga daal di jël yat léegi musiba am wala nga noonu sa xarit wala nga noonu sa dëkkandoo moo tax information sunu borom nee noonu ci li gën a mën a tas pénc mi ci la bokk moo tax in jaakum faasixun bi naba'in fatabayyanu ku leen mën a andil xibaar na ngeen teey ba xam nu mu demee ndax mën naa am nam ko waxee du ni mën naa am dugal na ci bëgg-bëggu boppam kon yow teeyal def li ñuy wax tabayyun te mooy leerlu ko ba xam lu lu ko tax a jóg ak nu mu demee est-ce que niñ ko waxee ni la demee loolu sunu borom moo nu ko jàngal nee na sunu bañee sunu sunu bañee sunu penc tas nañuy bàyyi xel ci information bu ñëwati nañ ko segg nañ ci xalaat bala ñu caa réagir waaye jekki-jekki rek ñu jox la xibaar nga daal di def lu la neex wala nga wax lu la neex bu ko defee mu jur safaan boo demee ba ci kanam ngay rëccu naan xamewuma ko woon noonu man kat bokkut ak ni ñu ma ko waxee woon. fekk na loolu nga waroon jiital da waroon a fexe ba xam niñ ko war a waxee ak na mu demee bala nga ciy réagir loolu sunu borom moo nu ko tere mu de mu waxaat leneen loo xam ne it moo gën a doyati waar ndax information boobu ma wax am na ñoo xam ne wuti ko jaral na leen lu ne léeg-léeg ñu fekk mbooloo sax ñuy waxtaan léegi surtout nag ak jamono ji nga xam ne caméra yeeg euh, ak euh, yu demee noonu enregistrement yi dafay bari da ngay toog di waxtaan ak sa xarit xëy na mën naa am sax la nga doon def du yoon moom it yaa ngi yaa ngi sëgg ci sa deru mbokk waaye lu mën a xew rek am ak rambaaj day daal da cee daal di nekk mooy ki ñëw euh, fexe ba yëddu la fexe ba enregistré la fexe ba dégtal ko ki nga doon wax ci moom loolu mën a jur yàq gu bari sunu borom moo ko tere woon nee na woon sa tajassasu bi benn julit di xeeñtu ak a seet ak a gës kenn sañu ko nee na sax bu ngeen demoon ci barab gis ñu fay def dara ngay sëgg di ngay nga nga nga sàkk làqutu ci ginnaaw nee na di di di xool nee na bu ñu mënoon a am xeej sax ñëw jam ko ci sa bët mu dagg bu boobaa daggan na kon mooy dañuy bañ penc mi bu pour jàmm am bu kenn yëddu moroomam bu kenn di xool moroomam di maanaam yëddu moroomam di ko di ko déglu wala ngay ngay làqatu ca ginnaaw di ko xool la muy def rawatina nag li xew léegi ni ma ko waxee te mooy di enregistré ak a filmé loolu bokk na ci li nga xam ne sunu borom moo ko tere la ca des nag mooy jëwante sunu borom da koo tere ndax penc mi su fekkee ne ñaar ñu wéet ñu nekk ña nga ci seen moroom su boobaa penc mi mënta jag penc mi pour mu jàpp jag dangay dangay wax lu baax rek yem ca ku ne na ko wax ci lu baax ci moom la nga xam ci ayib nga muñ ko te fekk ndax la la wér mooy ayib joo xool ci kenn lu mu rëy rëy rek soo demee am nga ju ko rëy ju ko ëpp te yow gisoo ko kon dañ laa muñal yow it muñalal ñeneen ñi seeni i ayib waaye dafa mel ni diggante jëw lu tasaaroo la fii lool ci ñi jullit ñi ba tax na lu mat a bàyyi xel la Euh, te léeg-léeg itam jëw boobu bokk na ci li koy waral mooy nit koo xam ne euh, maanaam li muy wane dafa bokkut ak li nekk ci moom suñu nekkee te loolu xew na ci suñu réew mi lool mbooloo yoo xam ne suñu dajantee lu baax rek la ñuy waxante loolu li may wax nii ñëpp xam nañ mbooloo yoo xam ne suñ dajee ca quartier ba wala ca ca daara ja wala fu mu mën a doon koo dégg ku nekk lu baax rek lay wax ci moroomam waaye dara dara dara ca la muy wax nekkul ci moom suy wéer rek daal di tàmbale jëw sa gaa yi nangam mbooloo sangam nangam tiijaan yi nangam murit yi nangam loolu rek moo fi xew ba néewaa na kuy wax lu ne ci moom waaye nag jotaay yi moom fexe nañ léegi ba ku gën a rafet ay wax rek nga bu bu mbooloo mi mbooloo mi loolooy yàggal jotaay yi sax ndax ku ne dangay bëgg fas fas ne wax te la ngay wax la ci ëpp nekkul ci yow te soo génnee rek tàmbali tàmbalee wax leneen ab safaan bokk yi loolu ay jullit da ko war a moytu jëw dafa rëy lool te yàlla bañ ko sëriñ Touba radiyallahu an wax nañ ne mas naa nekk njaareem génn ci keesam am ay mbo ay mbokki taalibe ñu nekk ci genn garab nekk ci genn garab naan tiijaan ya nii tijaan ya naa di wax ci ñoom ab safaan mu ne mu ne ana ñu nekk foofu ñu daal di kii mu ne lu ngeen di wax ñu ne kaa ah, ñu ne dañ doon kaf rek di wax ne mu ne déedéet yen du ngeen ni du ngeen ni nasaraan ndax xam nga yàlla dafa wax ci alquran ne bo neme ci yahood yi dañ naan juif yi nekkuñ ci dara bo dañ nan chrétien yi nekkuñ ci dara wa khalatil yahud laysat nasara ala shay wa khalatil nasara laysat al yahud ala shay mune bo deme ci chrétien yi dañ nan yi juif yi nekkuñ ci dara nga dem ci juif yi ñu ne juif yi nekkuñ ci dara mune lolu yen du ngeen juif ñom duñuy duñuy duñuy chrétien ba ngeen di waxante yu bon yooyu yenn ay mbokk ngeen da ngeen wax rafetal seen diggante mbokk yi yemut ci loola sax daa wax ne nañ ñëw dagg garab gi ngeen toogoon nañ wëlbati suuf si fi newoon mu féete suuf mu féete mu féete suuf suuf si newoon ci kaw nañ ko wëlbati ngir wane ne dafa bëgg laabal barab bi ngir li fi toogoon rek di ko di jëw li wér mooy loolu ab xeetu yariñ la rek ndax daa bëgg mbir ma rëy ci ñoom ba boo léegi kenn du ko xalaatati loolu nag tey moo tasaaroo ci suñ suñ biir ku nekk ab safaan ngay wax ci sa morom li koy mën a saafara bokk yi li ma wax lépp jàngoor yii ak yii sunu borom tere mooy ñu xam ne yàlla moo nu bind wuutale nu moo ko wax inna xalaqnaakum min dakarin wa unsa maa leen def góor ak jigéen dégg ngeen coowul góor ñi ak jigéen léegi fi ne nii yàlla nee na ma man la soob ma wut ay góor wuti jigéen yëmuma ci loolu ma wutale leen ci seeni waaso ak seen leneen ak seeni giir ñii doon soose ñi doon leneen waaye nag damaa bëgg ngeen joxante loxo li taxaarafoo damaa bëgg ngeen joxante loxo ànd tabax suuf si ndax yéen laa bëgg ngeen wutuma ci kaw suuf su ngeen xuloo di xeexante di waxante ab safaan du ngeen mën a ànd bay def def loolu li taxaarafoo kon bokk yi wuute gi lu mën a am am mën a am yàlla moo ko jublu yàlla moo ko jublu dañ cee war a waaru war ci yéeme war a xam ne rek yàlla moo bari kàttan te bari bari bari bari man-man ndax dangay gis mbooloo mu bari kii ñuul kii xees kii di wax bii làkk kii di wax leneen loolu nag kiimtaanu yàlla rek la da nga cee war a yéemu waaye waroo cee xool di ci xeebe sa moroom kon li taarafoo jooju lu am am solo la ba ca des nag mooy ab xeet mu mën a doon yàlla nee na mënta ñàkk ñoo xam ne dañ seen yitte yëpp mooy lu yàqu ñu defar bokk yi nag réew mi fa aslihu bayna axawaykum réew mi nag léegi àddina bi day quartier bi day bëgg a tas ñëpp di ko waxtaane ci grand place yi waaye amul menn mbooloo moo xam ne ñoo jóg ne ah li yàqu nañ ko defar te yàlla nee na loolu ci sart yi la bokk sart yi mi defaru mooy il faut ñu am ñoo xam ne lu yàqu ñu jóg defar ko kon nag bokk yi euh, maa ngi bëgg guddal te naaj wi tàng na ci yenn mbokk yi waaye dama bëggoon a wax rek ginnaaw fi réew mi toll ak jafe-jafe yi am képp koo xam ne am nga responsabilité am ñu la mën a déglu war nga caa jéem a wax ngir donte ñett nit la sax bu ñooñ bu ñu génnee jariñoo ko mu am solo noo ngi jéggalu ñëpp di bal àq ñëpp di delluwaat di sant mbooloo mi yëpp di ñaan mbooloo mi yal na ko yàlla gërëm yal na yàlla mbooleem jàngoro yi ma wax yal na nu ci yàlla musal sunu kër yal nay àjjana ñu dëkk faak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla def jàmm te def wér ñi ngi delluwaat di sant mbooloo mi yëpp di sant mbooleem média yi nga xam ne itam ñooy mën a jàllal yi bañ mbokk yu baree bari di di ci mën a jot am na ñoo xam ne su may dellu ci kër ga ñu di ma woo te ña nga ci bitim réew am yéen yi di ko dégg waxtu mu nekk xëy na ñoom ñoom ñoom rek ñoo mën a fexe ba ñoo ñu dégg kon nag ñu ngi ñaan yàlla nu yàlla defal jàmm xéewal jàmm xéewal suñu jaamu yàlla gi yàlla na ko yàlla nangu li mu ci digga lépp yàlla na ko ci yàlla defal bu dewee ne yàlla na bokk dajawaat fii ñëpp kenn bañ a manqué yàlla mën na ko te yàlla kenn ku nekk buy dellu si déwén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 ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تمحو بها كل ما صدر منا مما يخالف رضاك من وقت ولادتنا إلى وفاتنا وكفر عنا تبعتنا وديوننا وكل ما وجب علينا لك أو لخلقك إجمالا وتفصيلا واكفنا بجائه فعل كل ما لا تحبه ولا ترضاه حتى نلقاك راضين مرضين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الحياة من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين يا رب العالمين ñu ñaanal sunu mbokk yi fi bàyyi te ki ci mujj di jëwriñ Ibrahima Diouf yàlla na ko yàlla dolli njëggal ak yërmande waaye ña ko jiitu woon ñëpp yàlla na leen yàlla dolli njëggal ak yërmande ñu ngi leen di ziar nuyoo itam ak sunu mbokk Serigne Lamine Mbacke moo taxaw nii ak man dëkk yéen fii ci Kër Massar yàlla na yàlla def jàmm def xewal allahumma